Assalamualaikum asalaamaaleykum mbokki internet bi yeen ñi sétane zr Info TV ñu leen jaar di leen tëge di leen jox seen way tey nak ñu seet jeune talent bu am talent Pikine ñu koy wax malik Afia wa mu yëngal Pikine di yëngal banlé bi ñu gën ko ràññee ñu gën ko ràññee ci Pikine muy doomu Pikine malik ñi ngi lay jox pour nga nuyoo pour mu présenter len boppam non mais léegi mu dina baax ñëwaatal ah, dina may buña ah buña so ay de ñi mo ma dugal buuña ak ma ma a yow nag dinañ la dugal de ah, xaalis bi waxtaan sa waay top nii sa man dama neex sama neex moom ku may fay ya, <laughs> neex ku may fay ma jox ma ah kon jël nga ñu ngi leen di ziar mbokku téléspectateurs yi ziar yépp ci nekk sa tour ak waa di kontaan si dalal bi ngeen ñu dalal waa ZR info waaw amuñu lu dul kontaan ci émission bi waaw ndeysaan dëgg neexul ah, malik bu ñu diggee bëgg nañoo xam kan moy malik pe nga présenter sa bop nit ñi xam malik moy kan wane sa bop ah mais yo ni rek alaykum ni ni ni da nga naan der nit ñi xam ne nga der